بنفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت تلك لك وغلقت الأبواب وقالت جئت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت جئت dimaas ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril amoon nañ ca Ngaye Diagne di ab quartier bu nekk ci Ngaye bexe édition 2019 bu bëccëg bi ñuy jagleel ñaan ak ay sarax jëmale ko ci ñi bokk ci njaboot ak càllali njaañ te génn àdduna bismillahi arrahmani arrahim alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin alladina yuminuuna bilxaybi wa yuqimuuna alsalata wa mima razaqnaahum yunfiquun walladina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bilaaxirati hum yuqinuun ulaika ala hudan min rabbi ulaika almuflixuun jacalana allahu min almuflixin jacalana allahu min alfaidin jacalana allahu min alladina laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun bismillahi irrahmani irrahimi qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad alfatixi lima ugliqa walxaatimi liman sabaqa naasiri ilxaqi bilxaq walhadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabii ya ayuha alladina aamanuu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin na ku nekk jàngat fatiha jàng salaatu ala nabi wax ni yàlla na yàlla nangu alquran bi ñu fi jàng yëpp ba ñuy tëj ci ba ñuy def xatmu gi ak ba ñuy ñaan delsiwaat nañ ci taarixu bés bi ak li nga xam ni moo ko sabab fa mu bàyyeekoo ba léegi ay kaamil ñuy jàng ci ab lim bu ñuy dajale ba ci bés baa ñu xayma ko ak ki nga xam ni mooy Moustapha Diagne di membre comité d'organisation rabbil alamin eh, ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigal naam jafe na eh, mbooloo mu tedd nii ngay jël kàddu ci seen kanam waaye su la ndigal dabee faw nga jëfe ko eh, li ñu sant ci liggéey bi mooy ñu wax li nga xam ni moom moo lëkkoo ak moom moo lëkkaloo ak euh, liggéeyu kaamil li jàngub alxuraan bi nga xam ni amal nañ ko doon nañ ko mottali tey jàng ci ñetti kaamil waaye li nga xam ni moo ko jiitu nii la njàngum kaamil mi demee woon sëriñ Fallou gay jàng na juróom fukki kaamil ak ñeent sëriñ Moustapha Diagne Baguèye jàng na juróom-ñaar fukki kaamil ak benn euh, daara sëriñ Habib Diop jàng nañu juróom-ñaari kaamil sëriñ Moustapha ma sàmba jàng na ñaari kaamil sëriñ naa Diop jàng na fukki kaamil ak ñaar Mamadou Kadiagne jàng na ñaari kaamil musaa Diop jàng na ñaari kaamil Basiiru Jaxate jàng na ñetti kaamil Maxtaar Jaañ jàng na benn kaamil euh, kuréel gi nekk njiite Njaasaan jàng nañu fukki kaamil ak ñeent Ibrahima jiite jàng na ñetti kaamil mboole seen loolu mu ngi toll ci waaw am na fukki kaamil ak benn yu ci tegu yu ci tegu yu jóge ci Sëriñ Abdou gajaga soo ko boolee mu nekk téeméeri kaamil ak juróom-ñetti fukk ak juróom cent quatre-vingt-cinq kaamil yal na liñ ci séentu yépp mu ñëw matale ko fekk ñi nga xam ni ñoo sosoon liggéey bii yal na ko yàlla def te tofal barkeel bi ci biir njaboot gi yépp gannaaw loolu mu am ay cant yoo nga xam ni du mën a ñàkk ndax ni ma ko ter ni ma ko daanee la léegi dafa am liggéey boo nga xam ni suñ ko sosee fa mu tàmbalee du fii ñu ànd ko ak ay mag ànd ko ak ay kilifa yoo nga xam ni ñu ci bari làqu nañu waaye liggéey ba ñu tàmbali woon moo law ba egsi fii tey ñu bëgg ci loolu ñu fàttaliku ci njabootuk sëriñ Yoro jaañ te ci bopp bi El Hadj Mamadou Diagne nekkoon ci ànd ak ay rakam ñu góor ak yu jigéen Serigne Mamadou Moustapha jaañ soxna maam Diagne ak ñeneen ak ñeneen ñëpp ngi ci ñëpp mun lañ leen waaye bu ñu ko waxee dinañ xam ni. ah liggéey bi foofu la sosoo woon di fàttaliku njabootu Serigne Mor Amina Diagne te ci bopp bi sëriñ Jibi Diagne nekkoon ci ak ay rakam di fàttaliku njabootu sëriñ Moustapha Diagne te ci bopp bi Alaaji Masamba Diagne àndoon ko ki rakkam di fàttaliku njabootu sëriñ aatu jaañ te ci bopp bi Alaaji Alassane Diagne nekk ci di fàttaliku njabootu Serigne Ibrahima Diagne te ci bopp bi Mamadou Ka Diagne nekk ci di fàttaliku njabootuk sëriñ Jibi Jaañ soxna seen mooy jëri sëriñ sëriñ Jibi Jaañ mu mag te ci bopp bi sëriñ Ibrahima Jaañ mi nekk ci àndoon kook sëriñ musa Jaañ di fàttaliku njabootuk sëriñ ma sàmba Jaañ te Maawa Jaañ nekkoon ci ànd kook rakkam Moodu Ndooy Jaañ te ñu gën koo xam ci boos di fàttaliku njabootuk Moor Xujja Jaañ te ca bopp bi Grand Jaañ nekkoon ci di fàttaliku njabootuk sëriñ Daawuda Jaxate te sëriñ Paata Jaxate nekk ci bopp bi di fàttaliku ñi nga xam ne ñoo ngi ci jamono ji ba léegi waaye ànd ak ñun liggéey bi ku mel ni sëriñ Mbaalo Seck te àndoon kook mag ñi di fàttaliku sëriñ Góora Jaañ sëñ Ngaay di fàttaliku di di di suñu xel dem ci sëriñ Cheikh Tidiane Gaye ñëpp xam ko muy xafisul Qur'an di fàttali di di suñu xel dem ci sëriñ Cheikh Mbow te da ko kuure te daan yàgg ànd di taxaw liggéey bi léegi di suñu xel dem ci sëriñ eh, El Hadji Moustapha suñu xel dem ci sëriñ El Hadj Babacar Seye suñu xel dem ci El Hadj Moussa Diakhaté sëriñ suñu xel dem ci sëriñ Modou Ka te ci bopp bi Galaay Ka nekk ci bopp bi. El Hadj Mamadou Gueye ñu gën ko xam ci Modou Gueye suñu xel dem ci famille Maysa Anta Seck te ñu yàgg ànd ci liggéey bi suñu xel dem ci sëriñ moo euh, Modou Ami Diagne ak euh, famille bi nga xam ni mooy famille Mousse Mbore Mbaye. Euh, suñu xel dem ci Serigne Makhtar Mbacke mi nga xam ni moo nekk fii dëkk ak ñun te waajuram teg ko fi mu ñuy teg ci yoon wi nga xam ni mooy yoonu siraatal mustaqim te lépp lu baax mu di ko ànd ak ñun waaw. Euh, di fàttaliku suñu maam sëriñ Mor Gueye ca Castor xelam yépp nekk fii daan taxaw xëy na kantam kantanam mayetu ko mu ñëw fekke bis bi euh, loolu yépp xam naa bu ñu ko doon dajale duñ fi jóg ndax. ñi nga xam ne def nañu seen loxo mbaa seen njaboot def na seen loxo ci ci biir liggéey bi bari nañu lool euh, moom parent ñu ngi koy sant ndax ndax euh, at mu ne mu teew ak xalaatam ak ay digleem ak jëfam ci bis bi ba bërki démb rek li mu fi yónnee ci ndox yaakaar naa ne ñu ko fee jëlee euh, di fàttaliku famille El Hadji Moustapha Fall te ca bopp ba soxna ay Fall wax dëgg yàlla liggéeyam gis nañ ko ci biir njaboot gi ginnaaw bu nu sante suñu borom tabaraka wa taala tey julli ci seydina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni ki mujjee jël kàddu gi def na historique gu bés bi te naaj na dootu ci taxaw lu yàgg leeral na li xew njaboot gu daje woon la di ñaanal seen maam di ñaanal seeni wayjur muy njabootum njaase gépp ñooñu ñoo daje woon di defi ñaan di ko ñaal seeni wayjur ñu dem ba jàmm jamono mag ñi fi nekkoon mel ni alaaji Mamadou Diagne ak ñi maan loon soppi ko def ko ñaan gii ba mu jógee ca jàng ya mu doonoon mu mel ni thème bi ñu tànn tànn dama bëgg ñépp maasa di ko déglu ndax thème bu tegginu la muy ay teggin barki démb rek ñu ngi fàttali ko Cheikh Sidil Muxtaar suñu sang ba yàlla yàlla doon leer tas ci barkeem daan na wax naan ku amul teggin doo teggi dara kon thème bi teggin la sëñ Xaadim Njaay Kayaar dana ko def bu baax na mu ko daan defee mu mel ni comme dafa naaj ñu bëgg ci wax rek ni programme bi bëgg a tëddee orateur bu ci ne xam ne am nga ciy kàddu nga waajal ko balaa tis a jot ñu mën a yëpp programme bi incha allahu taala ci ndigalul sëriñ Alsaan Diagne mi kilifa njaboot bi ginnaaw loolu monsieur le ñoo lay dalal ci lii nga xam ni danga cee bokk ndax nit ki moom lu mu bokk bu ca ñëwee dañ ko jox cëram ndax yàlla dogal na kër gi ay Madeer a ngi fi te Madeer sa maam la kolere googee mag ñi jàppan nag ba nga ñëwee bàyyi goo ko yaa ngi ciy dox li nga man lu fi xew bu ñu soo gis la woote bi woote bi mooy alxuraan ñëw ci addis ñu wax lu nu mën a jariñ nu di ko jariñoo ba déwén nu dajewaat fi ñu wax nu leneen kàddu yu daamul lañ ñàkk rek waaye liñ fi war a wax mooy wax nañ ndax mbir boo ko waxee fa mu jógee wax fa muy doxee ba fi muy yëg dara desatu ya kon nag alhamdulilah rabbil alamin bi ñu ko jëlee woon ci mag ñi di ko doxal ba nëgënd si daanaka léegi xale ya yor lépp kon nan la sant yàlla rek ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm seen taxawaay rafet na sunu xel dal na ku gis ni ngeen taxawee nga xam ni yow yaa ko daan def léegi ñu defal lañ lay defal lépp doo bar lu sant yàlla rek kenn yàlla boole cant di nuyu ñépp nag bàyyiwuñu kenn di nuyu monsieur le maire mi nga xam ni mooy borom dëkk bi ah, maire ci dëkk nag mooy dalal ñëpp moom moom gan ñi kon bu ñëwee fekk ko teewe ko duñ mën lu sant ko di ko gërëm te di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla Euh, euh, defal ko jàmm yàlla jigé di yeggale xelam ak xalaatam ak liggéeyam yépp ñu ngi sant jigéen ñi nag particulièrement dama leen di beral jant ndax ñii seen taxawaay daanaka ñoom ñoo man sa góor ji ci taxawaay bi te ñu ngi koy def ci defin wu sell wu rafet yiw kon du man lu ku am njaboot gu day noonu doo man lu sant yàlla rek di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla na ngeen ko yàgg a yàlla na yàlla jëfal ak wér yàlla na ngeen defal xéewal ñun de suñu xel dal na lool tubaarkàlla tubaarkala baa ngi sant nag sama rakk yëpp nag ndax daanaka dara waratuma lu ma xanaa rek toog rek di seetaan de sëriñ ba waxoon rek ngocc ne daanaka mag ñi def nañu lépp ñun daanaka dañ koy jariñoo rek boo seetee ñi ko soloon ba ndëgg ni si anañu kon xam nga ni dañ fi jóge ñun ñëpp dañ fi jóge kon nag jaarukaay bii nga xam ne dañ fee jaar rek dëkkun fi yan nan ko yàlla rafetal ba mu gën a rafet ba mu gën a rafet ni mu ko santaane ni mu ko bëggee yàlla na ko yàlla defal ñu man ko waaye nu ngi leen di nuyu ci turu Baye Alsaan Jaañ di bég ci bés bi di fàttali ni nu ngi yor kàddu njaboot gi waaye bala ñu leen a jottali kàddu njaboot gi dina nu leen jottali ab yóbbante bu tukkee ci alaaji Momar Jaañ Bata di rakki alaaji Alsaan Jaañ waroowuñu ci dara wuutente ci dara mu wax ni sëñ Alsaan njaboot gi nga xam ni yaag moom yéen a ko bokk muy ñu góor muy ñu jigéen ñii di say jarbaat ñii di say doom ñu ngi am mbég bu baaxa baax di la jot lim nuyu di nuyu sa gan yu tedd yi jiital ci ñooñu sunu sang yu baax yi ya jóge Tuuba yay ti tiwaawoon te nga xam ne ñaari pénc yooyu ku fi toog ku ne togaale nga fa ña ca des ci xàqan ci lu wér ñu wax ni alaaji Momar de nee na mi ngi lay yëgal ni la ndakaaru geemu nekk ak sa njaboot gii bég na ci ñoom lool tubaar fa kàll ñu teg cee mu ni alaji sëñ Fallou jaañ alaji Moustapha Diagne ak eh, alaji Mamadou Ka Diagne bàyyiwul kenn xale yi nee nañu wala boog njaboot gi ndax bareetul ay gone léegi waaye ah. nag nee nañu loolu moom dafa neex ci ñoom ñu wax la ko tey santaat tey déglu rekk sa ay ndigal yow sax de daanaka say ndigal ku nekk ci yoon wu baax ma nga ca ndax ku def lu baax loola santan nga ma ko ni ma koo dégg mu def yiw ci jaboot gi nag ma ko jottali waaye bu ma waroon yéene kenn ku nekk la ma xam la mu def ca lu baax la ca bànjul la ca Ndakaaru la ca Almadi la ca Ndar la ca post ba la ca duwaañ ba la ca feneen bu ma bëggoon kenn ku nekk lu mu def ci wiiw ma nettali la ko ah xam naa ni dey dina ki la waaye ñu sant yàlla rek xamal la ni la kenn ku ci nekk mi ngi ci aw yiw te tey woowe jàngewuñu ko fenn fu dul ci yow mii ak sa yu baax yi sa rakk yu tedd yii nee nañu daal ñoom daal liggéey lañu bëgg ndax ki sàlloo liggéey wax ju bari waru ko ñu wax ni it ñu ngi rafetlu bu baax a baax teewaayu monsieur le maire teewaayu waa dëkk bi teewaayu seen baay yii fi nekk teewaayu seen nijaay yi ak teewaayu monsieur le maire waaye ñu ngi santit nag sëriñ xaadim njaay mii nga xam ni nii lu yittee tar tar tar buñ ko nee jógal mu bàyyi lépp ñëw topp leen loola nag dafa am kilifa amub xaritam am soppe bu ñuy wax sëriñ Touba moom lañ lay booleel mu defal la yiwu ko mate te bu la sëriñ Touba defalee yiw dey mbokkam ma fii ci Tiwaawan dana la defal yiw wu ni toll wax ji dootul mën a bari nu ngi sant ñëpp nu ngi gërëm ñëpp nu ngi nuyu ñëpp nu ngi siyaare ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf secrétaire général et secrétaire particulier sëriñ jàng na yi la sëñ Alsaan takkal dafa bari <laughs> waaye yàlla nay sëb cër te nga muurloo yëpp bi jaahi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikhul Khadim ñu bëgg rek daw bi ndax mi bëgg a naaj te conférence yi kenn jëwagu ci sëñ ma lay kàddu gaa ngi nii. ci atum 2014 ba léegi nag bokk na ci li gën a fës ci boobu la xew-xew journée consultation gratuite ba ñu fay amal di seet askan wi nga xam ne ñoo dëkk ci ngaay ak dëkk yi leen wër seen wàllug wér-gu-yaram te duñ ci fay dara atum ren bi nag mel na ni bilan bi am na solo junni ak juróom-ñetti téeméeri malaat seet nañ fa ci ñooñu ñetti téeméer amoon ci feebaru bëñ euh, mbokk yëpp ñu ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sant euh, maa ngi jël parole ci sama turu frère maa ngi jël parole ci samay turu frère euh, pour defal leen un petit bilan ci journée médical bi ñu def démb donc journée médicale bi donc euh, journée de tradition la journée de grâce la et de solidarité envers la population bal leen ma ci tubaab bi nag tuuti de parfois ma jàdd tuuti <laughs> waaw donc bisu démb bi euh, jot nañoo consulter mille cinq cent personnes au moins cela veut dire que junni ak juróomi téeméeri nit seet nañ leen jox nañ leen ay garab ah loolu nag li tax ñu mënoon ko def mooy famille bi yëpp dañ cee jàpp ñi ngi sant ñëpp ñëpp ñëpp di gërëm ñëpp particulièrement am na ñoo xam ni il faut ñu tudd leen particulièrement suñu frère Pathé Diakhaté ñi ngi koy sant di ko gërëm parce que bis bu ne mi ngi ci soññ di sant waa UGPM sa waa Sampap di sant fondation Anne Marie Dione ñoom indil nañu ndox mu bari ak ay t-shirt démb ñi ngi sant aussi waa association ngay mexe santé ak Ndongo Diagne ak fondation Marie Stopes International journée bi daal journée réussite totale la woon parce vraiment amuñ ci woon benn problème te li ñu yaakaaroon am yaakaar nañ ni euh, réussir nañ ci une partie bu dul lépp. maa ngi leen di nuyu ci sama turu kilifa Mouhamadou Diagne ànd suñu ak sunu chef de village Serigne Fallou jiite xam naa jataay bi ak waxtaan yi dafa ma bett ba tax na li ma bëggoon wax lépp duma ko wax waaye avant ma tàmbali maa ngi gërëm sunu doom. Euh, xaadim jaañ doomu Moustapha ak njabootu ma Masamba gépp di gërëm soxna Khady Diagne ak maam jaañ ndax defe naa ñoo bokk mel na maam euh, di leen sant bu baax di ñaan ngeen yaatal jataay bi bu baax bañ koo yamale ci njabootu Birama Diagne su ma nee njabootu biraama jaañ mën na maa wax Baye Moustapha baay Yoro baay Aatu baay Maawo euh, ndax yaatal gi mooy tax ñu xamee tey su ma demoon ci njabootu Birama jaañ rek tey baay Maawo ay doomam am na ñu leen xamul fii te yéen a te ñoom ñoom Khady jaañ ak baay Maawo Baye Baye Ibrahima ak baay Maawo ñoo bokk benn baay te njabootu Baye Maawo ñu ngi kag yi démb woo naa Ayda Diagne pour xamal ko ko arab nag dafa woo baaxoo xamale boppam man maay kan man Ibrahima Diagne laa tudd sama way juru góor Masamba Diagne la tudd Masamba Diagne way juróom mi ngi tudd Omar Diagne Omar Diagne wajuram mi ngi tudd Birama Diagne Birama Diagne ñaari doom la am Mbay Diagne ak Omar Diagne ñoom ñaar ñoo toppante bokk nday ak baay Mbay Diagne jur Moustapha Diagne ma ca Kawlax ak Maas Diagne ak Badiane Fat Fat Diagne ñu ko Fat Kanji ak Fat Diagne mee ci Daaru Cissé ak ak ñëpp xam ngeen ko kon tey bu dee ci côté Maam Diagne sama baay mooy ndijaayam waaye dama bëggoon ngeen yaatal jotaay bi ndax ñun dañoo war a xam suñu bopp. dañoo ñëw fii avant 1700 Seydil Mokhtar Abo Tayib jëbo jóge Maxraj ñëw fii Ngaay lan moo ko fi andi woon mooy diine lislaam ak taxawal diine l'islam ci jamono bu critique nag boo xam ne dameel dañ fee nekkoon di bañ ku yëkkati benn kàddu mais moom bi muy ñëw dafa am ñaar yu mu àndaale woon mooy l'islam bu wér péng ak li ñuy wax xilmu lasraar xam-xamul lasraar xam-xamul lasraar boobu moom la jëfante dameel ba mu taalal kook daay goo xam ne dafa demoon ba ba ba ba ba ba mboora fii ba mboora ku fi mosan bay il faut nga ñëw tàggu ko loolu li ko mayoon mooy xam-xam kon ni Fall Piri fi ñëwee 1555 jiitu ñu fi tuuti Cheikh Bounama Kounta ñëw fi 1000 1800 sunu maam yi seq ak moom lu bari de xëy na détail bi du ma ko may parce que dañ ñoo ko dalal Cheikh Bounama bi muy ñëw fii mi ngi judd 1780 am ñaar fukki at ñëw fekk sunu maam Maawa Jaañ mu dalal ko. ci xam-xam yaatal ko jàppale ko ci ab sancam ba 1600 sanc ba àgg kon loolu tamit war nañoo xam suñu bopp xam suñu bopp mooy lan mooy fu suñu maam yi mës dem rek alxuraan moo leen fa yëkkati ak xam-xam ak xam seen gëdd loolu moo jëlee fii sama baay ndax fii la juddoo sama baay fii la juddoo 1020 la baayam 1920 la baayam gaañu te tey bu ñu wax xalifa xalifam ngaay gépp di xay xalifam Seydil Mokhtar Abo Tayib bi ma wax léegi sama baay la ndax ki ki bokk ak sama baay benn baay mi ngi dund ñu ko wax baay mbay Diagne mu dëkk Mbora judd mille mille neuf cent vingt ba léegi mooy nodd ci jàkka ja kooku war ngeen ko xam kon mooy xalifa tey Cheikh Seydil Mokhtar Abou Taïb xëy na nag bu dee fii ci kër Birama mën ngeen wax Alassane Diagne ndax mooy seen xalifa ndax Alassane Diagne baay aatoo ko jur waaye nag bu dee xalifa bi nga xam tey mooy xalifa général lépp lu sant ngaay dëkk ngaay Baye Mbaye Diagne la ma ngi ca ngaay ci ñaay jur Pape Diagne mii liggéeyal Baye As judd 1920 baayam gaañu ndax xam ngeen ni Diagne Euh, njamaan di ngeen ko dégg mag ñi di ko wax dañu am dëkk bu ñu sancoon boo xam bu tudd njamaan bañ demee feebaru piste ba dal leen fa ñëpp gaañu looloo dal bàyyi sama sama maam Omar Diagne bàyyi mbay Diagne moom ma leen di wax tey bàyyam yaayam gaañu na ñaari fan mu koy namp ba booba ñu nga kër Sayib Ndoy foofu ngeen gis inaas nekk foofu la sama maam mujjoon ñu dégg sa sa sëñ Sayib sëñ Sayib di dégg xale bu ndaw di jooy ñaari fan parce que boobu la piste bu ma saadal bu ñu la génnee jox lekk fi ngelaw luy jëm du jëm day dem ba jubla 3 mètres 5 euh, mètres teg fa lekk ga soo mënaltu la ñëw da ngay dee sama kër maam muy suñu kër maam Moustapha Diagne ak kii may wax nii di maam Diagne ak ak Khady jaañ ak kii ak euh, ak Moustapha ñoom sun maam foofu la këram raate kenn kenn kenn desul ci kër ga te boo ma ngaa ñetti soxna baay mbay kese kese moo fa des di jooy ñaari fan ñu dem wax ko maam maali Diagne dindi jaayam ca ngaay mu dem teg ko ci aw fas yóbbu ko ngaay Diagne xoolal yàlla mi yor ru tey mi ngi koy dundal ba am juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent nodd ci jàkka ja bu ëllëgee te it loolu maa ngi ciy gëstu ci Sidil Muxtaar Abu Tayib bi nga xam ne moo jóge woon Faxras ci Mauritanie di naar pire di borom xam-xam pire maa ngi ciy liggéey incha allah ab téere bu àggee yàlla mën naa am fii déwén dinaa ko andi dinaa leen wax ñi Birama meññi dinaa leen wax ñi Malick meññi dinaa leen wax ci Maawa meññi pour ñu xam mbokk gi ndax suñu borom subhanahu wa taala dafa dafa wax lu wax wa jaalnaakum suhuban wa xabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum yàlla bu ñu defee ay xeet parce que ñun ñëpp bu ñu doon ay xamante ñun ñëpp buñ doon ay joolaa duñ xamante ñun ñëpp buñ bokkoon ay sant duñ xamante waa yàlla dañoo def ay xeet pour ñu xamante te yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ni lu waay gàtt gàtt xam askanam na fexe ba xam juróom ay juróom maamam ay juróom ñaari maamam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom góorgóorlu na ba xam ñaar fukki maamam ak juróom donte xam na lu ko ëpp ni bu ngeen fa agsee na ngeen fa yem te addis yu bari rot na ci abu am Abdullah ibn Mas'ud wax na ci Asma bintu Abubakar wax na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ci yéen ndax bëgg na jël ab xam nga jëmmu li gën a fii moo gën a sensible ci nit muy paxu bakkan nee na kan moo ci yéen moo bëgg jël boppam toroxal ko ba jël ab bant di ko dugal ci paxadu bakkanam ñu ko wëlbati ñun ko yaa rasulullah ñun de kenn ci yéen bëgg ko mu ne képp koo xam ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi doyadal sa askan yaa ngi toroxal sa jëmm ñun njaañ nag li am mooy xam-xam alxuraan tege ci yoon ndax ñi ñu fiy dudd tey ñu ci bari ñun ñu ci ñoon lañ jaar Serigne Touba jaar na fi mun naa ci wax lu dara ndax mbind ñu ma fekk mag ñi wax la ko seex seexal euh, bu naa ma kunta ñoo ko dalal loolu moo andi ba njiite ba ñëwee njiite Njaasaan seex bu naa ma fekk ñu fa 1860 mille mille mille huit cent mille sept cent mille sept cent soixante quinze lañ fa dem moom mu ñuul fa mil 1883 ñu dalal ko fa tey bu ngeen di dem Tiwaawan lépp li ngeen di gis mu jóge tëli ba sës ci tël ba sës ci Njaasaan suñ suuf la ñun ñoo ko moom yéen doon dégg coow yi passé at yi passé ci presse bi yëpp di ngeen dégg sax maire bi dox Ibrahima Diagne Ibrahima Diagne man mii lay wax parce que ku sant Diagne day bañ seen village la àndal xam na li may wax ku sant Diagne dafa mës a bañ ku mës a dafa dafa mës a bëgg boppam ku mës a a sàmm dafa mës a ci dëgg sama baay dafa ma nettali benn affaire nee na Baye Mamoun Diagne daf bi mu nekk bi ñu nekkee Samaayel pour wax ni rek tubaab bi jamono yooyu su fekkee amoo lu ñu lay ragalee dañ lay not da ngay sa soxna su rafet damee li ñëw ni ko buur Ibrahima Diagne am na soxna mun demal nga andil ma ko yor ko ba mu neex ko mu andil la ko wala nga bay sab tool ba dugub ji ñor lépp ñor pepp mi ñor ñu dem wax ko dameel mu ni solal ma saako yi looloo fi amoon mais suñ maam li mu ko ragaloon mooy lasraar ak xam-xam boo xam ni mag ñi boo leen musaa laal seen tool dañuy daje ci pénc mi ñu ni Ibrahima Diagne man looy jël man leen jël naa bopp bi ñu ni maas looy jël mu ni jël naa tànk yi moom doo am doo am ñetti fante déewoo parce que yaa leen tooñ da nga leen toroxal ñu bañ te loolu lañ doon def te loolu ba mi ngi fii suñ kàddu la sama baay wax ma ni ma damaa nekk ak baay Mamour baay Ndëri muy baay Moustapha nee na ñu bay gerte ci samaayel gerte gi nungu trop nee na bi gerte gi nungoo trop baay Mamour daal di dem tukki dem kaf dem dem dem ginnaaw lax nee na ma dem maag waajuru Moustapha ba amuñu leen luñ sol pour wax leen rek dama leen wax rek ni mag ñi dañoo amoon fulla am fayda nee na ma dem maag maag waajuru Moustapha Diagne amuñu ak maas amuñu dara luñ sol te nee na booba dañuy aaye gerte sa gerte gi nga bay boo ko jaayee dañ jàpp tëj ci kaso bi nee na ma dem jël sama ñaari bërigo kepp eh, eh, gerte ni ko bàyyil ma jaayi ko pir ndax maa yow ñu am ci luñ xotti nee na ma dem jaay sama ñaari bërigoy gerte xottil ci sama bopp xottil ci wajuru Moustapha Diagne bu jigéen nee na bi ko biñ ko yëgee ñu ne ñu yaa may jox ab convocation nee bi ma joxee convocation nee na ba ma dem nit ñëw ci Baye a jaañ xam ngeen Baye Yoro Diagne ak Baye Maawa ak Baye Ibrahima ñoo bokk ñoo bokk ndey baay te seen am na lu ma jël foofu sax sama maam Omar Diagne tey am na doom yoo xam ni ñoo Baye Ibrahima Diagne ak Bayoro Diagne ñoo bokk benn ndey waaw parce que bi seen wajur gaañoo moom moo ñëw donn ko soxna si kala sant mooy bajonu gi laay ka mais doom yooyu noo dundul waaye kon te sama baay tey day wax ni Ibrahima Diagne ak Yoro Diagne ak Baye Aatu ak Baye Maawo seen yaay mm, am naa koo xam ñoo bokk baay mais am na koo xam moo yéen ñoo bokk ndey ndax sama maam moo jógee kër booba ñëw doon soxna si ngeen xam loolu ba tey nee na bi ma jaayee gerte gi ñu jox ma ñaari convocation nee na ma daw ñëw ci wax ko ko nee na daal di woote ni ko xanaa xamoo ni kii doomi njaañ la loo boo ko laalee ma jëflanteeg yow loola nag la ko doon maye mooy xam-xam ak dignité ñun njaañ nañ ci góorgóorlu bu baax képp ku am sa doom lépp loo koy jàngal na ci alxuraan jiitu man mii na ngaay gi laa dëkk fàttiwu ma ngaay ndax tey ji Ibrahima Diagne mii chef de quartier tudde naa ko doom lan moo tax mu tudde ko doom xam ni fii laa dëkk sama baay damay nettali man de moo amoon la ma gënal damay ñibbi njaañ donte maa ngi njiite ma xam mbokk googu jàpp ko ndax dëkk bi sama maam dafa jógee ñëw fii moom ko bi ñu ñëwee fekk maam Mangom Diagne maam Mangom jaañ moo jur Baye Jibi Diagne baayub Ibrahima chef de quartier sama maam tudde ko doom mu de ko doom jamono boobu sax ngaa ci lañ mos a xam mu am coow parce que Mor Fall di bi jur Moustapha Diagne ba ca ba ca Thiès ah daf koo xaw a am ñu werante ñu daal di xaaj gent bi bi ñu xaajee gent bi jox sama maam Omar Diagne leen li mu daal koy jël jox rakam Omar Mangom Diagne muy bàyyi bàyyi jibi Diagne daal dem kër Seyim Ndooy foofu la génne àdduna ndax xam-xam a ko yëkkati woon fu ñu mës a nekk rek tuddees na leen man mi waxee tamit yàlla dimbali na ma tay la mag ñi ne laa ñekk Ibrahima Diagne ki ma ko tuddee mi ngi nii mokkal na alxuraan bind na kaamilu alxuraan mi ngi jàng xam-xam ndax loolu laa doon laa gëm man mi fa ma nekk Diagne laa sant waa yàlla dogal maa imaam ratib jiite waxuma ko pour puukariwu mais dama ko wax pour ñu xam suñu bopp xam suñu maam ñooy ñan ni fa Mbàkke teg tànkam fa Sik teg tànkam fa Kunta teg tànkam foofu la am droit teg fa suñu tànk parce que suñuy maam dañ fi andi diine l'islam taxawal fii fii ci ngaay l'islam taxawal ko ci kajoor kenn mus leen a yàpp kon loolu buñ ko fàtte. ah macha allah macha allah Ibra macha allah sëñ Ibrahima sëñ Ibrahima jërëjëf li nga leeral ci bokk gi mat na ko lool li nga leeral ci bokk gi mat na ko lool wax dëgg yàlla macha allah école.